plus que li mu doon ñoom seen jënd boobu ñuy jënd di jaayaat nga xam ne jënd jaayaat taxul a jóg ab société nationale. loolu baana baana la loolu. waaw mbiru baana baana loolu Clédor mën na ko Coro Diouf mën na ko Pape Maguette mën na ko. léegi te jënd jaay bi man li ma ci jaaxal te mu bëgg la koo laaj mooy. Mhm. Euh, taxul énergie muy courant mën a dajale ci Sénégal. parce que ñu ngi wax ay électrification rurale bari na ci ay dëkk yoo xam ne yu bare mhm. bari bari mhm. ay. mën naa ci cité yu ma xam. yu mel ne ay meew njóobeen ak boo fa demee am na ci dëkk yoo xam ne courant dañ koy dégg mais xamuñu ko. da ngay gis ñu jël ay ay ay ay fil di ko lëkkale ci ay poto. Mhm. muy jóge ci poto bi lëkku ci lëkku ci bële ba keroog buy dem. Mhm. dem na ba dugg ay gàndo ay côté Gambeeg yooyu euh, ay ngànd plutôt. Mhm. boori Gambie. mais ba tey am na ci dëkk yoo xam ne ci Sénégal mënuñu am courant donte ñi dañuy jënd di jaayaat mais seen jënd jaayaat boobu sax mënul faj dara. xam nga loolu politique gu la. parce que Sénélec ak ak euh, Orange ñoom dañu ni am na gox yoo xam ne boo fa yóbboo courant wala réseau doo bëri ay abonné parce que transport courant bi ay poteau haute tension la bu demee ci dëkk boobu nga xam ni deux mille personnes a fa nekk trois mille personnes du rentable parce que ñoom ñu ngi xool rentabilité xoolu ñu mission de service public alors que solution bi foofu mais mooy solaire solaire cherul donc ñoom au lieu ñu liggéey loolu ñu créé benn agence ANER agence nationale pour les énergies renouvelables nga xam ni même liggéey que Senelec lay liggéey ñu wutal ko direction secrétaire auto euh, budget et tout mm-hmm. utal ko conseil d' boo xam ne day am présidence président conseil d' administration nga xam ne day am presque même traitement qu'un directeur tout le conseil mu nekk ay charge yoo xam ne pour def liggéeyu Senelec moo am ci wet ga beneen agent léegi dara waratu ko dafa ndaal mhm. jeexul mu am beneen agence ko ci sa charge yëpp kay mais defal nag mu am beneen agence bu ñu tuddee ASER agence sénégalaise pour l'électrification rurale li nga may wax nii mhm. beneen agence boo xam ni moom léegi Senelec comme fële c'est pas am na benn agence boo xam ne daal léegi mooy toppatoo village agence boobu day am directeur ak cabinet ak euh, staffam yëpp véhicule de fonction bureau locaux et tout ay salaire et tout plus conseil d'administration boo xam ne aussi ñoom tam dañu am seen lépp léegi ñoo ñooy toppatoo waa àll bi mm-hmm. te loolu yëpp prérogative wu la mais man ci bi ñu dàqee Bachir Fofana journaliste. Hmm. ci laa xam AME agence pour l'économie d'énergie. encore autour de l'énergie am na nekk te beneen agence boo xam ni man benn journaliste bu fa nekkoon ñu jëlee ko fa sax moo tax man ma xam agence boobu. ak li ma énergie ñoree yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp te xam naa ni bari naa ay moroom yu xamul AME parce que une agence pour l'économie d'énergie. mais il y a mu ngi mel ni ci cité kër góor gi dama dama fa gis observatoire pour la parité ci benn immeuble <laughs> observatoire pour la parité donc am na effort de rationalisation ñu war a def pour mhm. revenir à l'énergie mhm. ci wàllum énergie ba nga xam ne ñu nekk ci dëkk dëkkaan yi ñu mën a jël seen euh, euh, euh, accès à l'énergie en charge parce que ñoom ci dëkk bi la ñu bokk mhm. donc euh, électrification euh, solaire mën na dem ba ci gox-goxaan yi te du soxla ngay jël ay pylône di ko samp ba foofa ñi nga xam ne dañoo nekk ci ay île tam nga xam ne ndox moo dox seen digganteeg seen village mhm. solaire aussi mooy solution bi ay câble sous dafay metteek yooyu tout ça donc loolu yëpp am nañ ko comme solution parce que am nañu naaj am nañu moyen accumulé euh, euh, euh, naaj bi ngañ dem ba Touré sama xel dafa dal ci moom bi ma déggee mu ni mhm. lithium mu Sénégal dañ koy utiliser pour énergie pour defar ay batterie parce que batterie au lithium yooyu mooy mooy mooy mooy stocké énergie bi nga xam ne naaj bi moo koy produire bëccëg pour que guddi gi nga mën a jëfandikoo énergie boobu ba bët set te minerai boobu aussi am nañ ko fi mais lii defar panneau solaire tam am nañ ko verre la verre suuf moo koy defar sable extra-siliceux mm-hmm. am nañ ko fii jogo ba Saint-Louis moom la donc technologie boobu mën nañ ko importer Chine Russie Allemagne Europe wala fu mu mënti doon ñu am fi ay usines yoo xam ne dañuy defar ay panneaux ay usines yoo xam ne dañuy defar ay batteries mm-hmm. et en attendant ñu jënd des kits installé ko au nom de Sénélec parce que fu doxandeem jógee dëkkam fële ñëw ñëw dugal vingt deux milliards pour chaque année mu tëdd ñu koy jox ay milliards am mais loolu Sénélec mën na ko bien sûr doomu sénégalais yi mën nañ mën nañ ko tamit mm-hmm. pourquoi ñu war ko jox tout le temps ay étrangers ba ci courant wu Manantali Malantal li nga xam ne ñun dañoo jàngaloon ni OMVS la. Mhm. organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. que euh, euh, ak Mali ñoo ko bokk. Mhm. barrage yu ak ak ak bi ma wax léegi Jama ak Manantali. Mhm. courant bi ñu ne benn sud africain bu jógee fële moo koy jaay Sénélec. te courant boobu yaa ngi naan courant bi euh, dafa manqué. mais Sénélec day jaay Gambie courant. day jaay Gambie vingt six milliards ci courant par an. léegi nag Senelec day jaay Gambie courant chaque année te Senelec mënta matale courant ci Sénégal waaw parce que bénéfice lay wut ah. foofu day am vingt six milliards chaque année foofu mais li grave te ñu war ko dénoncer tam ci wàllu énergie mooy li ñu tuddee concession ay marocains ak ay tunisiens dañ ñëw fii côté Ganjour mhm. ñu jox leen ñu nekk ay producteurs indépendants courant bu noppi ñoom ñooy facturer ñoom ñooy jaay xam nga Senelec lañu xam ci jaayam courant mais am na ay société maghrébine ay société marocaine et tunisienne ñuy jaay courant Sénégal dans le dans le Gandiol mhm. en dehors de Senelec parce que Senelec daf leen defal concession mhm. ñoom ñuy jaay dëkk dëkkaan yi courant loolu nag moo tax day baax ñoom ñu ñëw fii ci débat bi waxtaan ak ñun vraiment Pape Maguette fexeel am invité ci ñooñu. moo tax moo tax gis nga bala ñuy. il faut que ñoom tamit ñu ñëw ñu waxtaanee li ñu bokk. mënta ñàkk parce que parce que. tey yow yow da ngay dem ba benn moment boo xam ne coro. li ngay man rek mooy fexe ki xam sonn ci di gëstu te bëgg xamal li ñu ñëw nga jox ko parole mu wax mais ñii Clédor di wax koo ci woo ci ñoom boo ko doon neexal ay millions du ñëw. moo tax nag toog janoo ak janoo ak <laughs> janoo ak taskatu xibaar yi parce que ñun mm. ñii toog jàkkaarloo ak Clédor am na ci mm. lu bari bari loo xam ne nii mm. ci émission bi ak bi yëpp moom moo ñu ko xamal absolument mm-hmm. donc su fekkente ne ñoom dañoo ne ñu ci biir ñoom xam li ci biir bay gestion bi ñu leen ciy tudd mm-hmm. ak di bëgg a yor yor mbir mi mm-hmm. da doon neex lool ñoom it ñu ubbi seen i bunt ñoo jàkkaarloo ku mel ni yow nga xam ne ñun dañuy taataan rek ay ñu jàkkaarloo sax mu ñu jàkkaarloo ak yéen rek bien sûr ndax bu ñu jàkkaarloo ak ñun question yi nga xam ne ñun nangoo nañ ko ci yow yëpp mhm. dinañ leen ko eggee dinañ leen ko posé ci loolu nag laay soo waxee ñu mën a tontu c'est-à-dire Clédor mhm. Ciré bu waxee ci ci bi mhm. ñoom dañuy nekk ci biti di tontu dañuy woote téléphone dañ may dañ may dañ dañ may ñëw dañuy ñëw ba ci man sax dañuy ne ci biti di ñëw léeg-léeg ñu ma léeg-léeg ñu contacté ma ci lu may wax lu leer la ñi ma ci contacté mën naa xam naa hmm. leen du ma leen tudd nag pour bañ leen kii li muy wax maa ngi ci contesté lii maa ngi ci contesté laa def ci seen observation bëgg laa rey ak wax ci téléphone mais du ñu ñëw te plateau bi ñu tudd leen ko du ñu ñëw moo jaaxal ñëpp moo tax Clédor mhm. <laughs> euh, euh, man manque de volonté mhm. gis naa ko ci wàllum courant bi ci Sénégal ak chéra bi yëpp manque de patriotisme gis naa ko ci mais aussi gis naa ci ak lëndëmal ak mhm. caay-caay goo xam ne ñi koy def ñëpp li ko waral moom mooy am juróom jox ma fukk maanaam lépp li ko la li ko lal mooy mooy créer ay sociétés yoo xam ne ñoom ñoo koy jiitewaat société yooyu ñoom ñoo leen di jox marché yi ci biir Senelec ba pare di leen di leen di leen seetlu maanaam ñoom ñoo seet seeni gestion donc loolu mooy man maa ci cappaandaw ga ci mhm. njëlbeen ga mhm. ñoom ñoo yor lépp ba ci mhm. suuf léegi nag dama dégg nangu léegi ci sa ay wax nga ni euh, ci régime bu bees bi maanaam bu ñu dee xool ci côté rupture dañ koy xaar ci wàllu courant bi. Mhm. nga ne c'est gênant ñu jële fi le nouveau directeur général man je je pense que c'est pa gênant. no parce que bu waxuma c'est pas gênant de dama ne. Hmm. c'était pas urgent laa wax ba waaw baatu urgent laa wax. ah urgence urgence pour ñu jëlee fi Pape dem Bitèye Pape Demba Bitèye indi fi euh, euh, neuf tant que amuñu woon ku ko ku ko mën a remplacer dans la rupture. d'accord jarul woon yàkkamti pour. pour jëlee ko fi gênant laa wax et non urgent xam naa da ma dégg bu baax. sama la si nekk fal ko léegi jëlee ko fii kii. fal ko tout suite comme bu Cheikh Dieng bi. xam nga day nekk tuuti cafouillage. cafouillage si si ko fa ba régler problème bi moo gënoon. mais est-ce que aussi jëlee ko fi nii nii mënta doon mënta ne. mais moo war a ne. waaw kay. loolu parce que sénégalais rupture bi ñu soxla bu fekkee moom attanu ko aussi wala boog euh, euh, comptable la ci gestion Pape Demba bi tey ñu mm-hmm. jëlaat ko fa tegaat ko fa ñu xam ne lëkkaloo bi am ci diggante ñi yor wàllu courant ci ay Samuel Sarr ak ñeneen ak ñeneen mm-hmm. moom da koy gën a jëmmal loolu tam beneen mbir la bu ñu war a toog waxtaane ko politiquement xam nga nous on parle en public si te gis nga euh, kilifa yi boo waxee lu leen gàllankoor mm-hmm. dañ lay yóbbu ci yoon wala ñu démentir la si man bi ma defee sama conférence de presse ba léegi communiquer génnut Senelec defu ko. wallaay yow nit ki publier say contrat publier sa rapport interne. Hmm. yow ñemewoo ko laaj sax foo ko jëlee ñemewoo ñemewoo ba noppi dafoo communiquer pour ni kii li mu wax du noonu. Hmm. pattaaral boobu pourquoi. parce que kon tey jii Pape Toby Gueye s'il n'est pas comptable de la gestion de Biteye. Hmm. kon day génn léegi nit dañ koo toll. c'est mais il est comptable de la gestion de Biteye. te Sénélec ñoom rek newuñu fa ay patriotes ñu ngi fa am pagaille ay agents yoo xam ne pas patriote dans le sens de militant de Pastef de patriote dans le sens de ñi bëgg seen Sénégal mhm. ñi bëgg changement mhm. ñu gëm seen seen bopp gëm et puis moo ëpp ay ay ay ressources humaines de qualité que société yu bëri bëri bëri bëri. c'est xam nga. Mhm. gis nga suñu société nationale yi ay Sonatel. ay Sénélec. ay SONES mais on a des de des ressources humaines de qualité ci suñu grande entreprise yooyu suñu grande société nationale yooyu mais état moo leen dundalul ñoo jël orange teg ko ci kaw Sonatel jël euh, tubaab yi teg ko ci kaw SONES mooy xaw ma SDE la xaw ma nu mhm. SDE la ñu tudd ba léegi ah e, parce que ñoom dañuy changé rek SDE oui voilà teg euh, teg leen ci kaw ci kaw ci kaw SONES mhm. léegi nag ñu jël producteurs indépendants yi 77 pour cent teg ko ci kaw Sénélec mais politique boobu nag la ñu war a inverser parce que sinon amul sens ñu am ay société nationale mhm. société nationale c'est pour pour c'est pour état moo moo moo war moo war a majoritaire donc moo war a moo war doxal politique moo war a doxal gis-gisam et non ay doxandéem tey jii euh, producteur indépendant yooyu ñu nekk seen gannaaw mais du ñu ay waa Pastef de waa nguur gi weesu la woon mhm. waa léegi 2009 2010 courant bi dañ ko fi saboté woon. Mhm. waaw léegi bu ñu ko defaatee nag léegi pour créer crise ñun fuñ ñu jëm. xaw ma ko ñun ñoo ciy dee rek. mënuñu fi créer ay explosion wala ay panne wala ay affaire dafay am. ay blackout. ñu ne dii moo yàqoog moteur bi moo ni teel ak et cetera et mhm. cetera comme ñu fi indilee woon de façon criminelle carburant boo xam ni dafa amoon ndox dafa frelaté l'affaire Trafigura mhm. pour paralyser tout le parc de production de de de Senelec loolu jaaroon na fi. pour paralyser Sénélec la woon ñu dugal ko fi ñu ne woon dañuy mën a enquête ba léegi kenn mënewul benn enquête Sénélec defoon communiqué bu tàng jër ministère bi defoon communiqué bu tàng jër ni si bi yoon affaire bii dinañ ko suivre jusqu'au bout ak ci ku mu mën dal boobu su Ablaye Wade la woon mais ñu dara mais mu mujjul fenn ba léegi pratique yooyu mais bu fi amaatee duñ ñu tardeel donc loolu rek jar na ñu peeg suñu instrument de production d'énergie suñuy instrument de production d'énergie mm-hmm. euh, euh, Taïba Taïba Ndiaye euh, parc éolien de de Taïba Ndiaye mm-hmm. nañu war a négocier ak West Africa Energy la ñu war a négocier ak ñoom mm-hmm. ak champ solaire yi fi nekk yëpp pour delloo nit ñi seen investissement tegal leen ci bénéfice mu nekk suñu moomeel ñun ñu en tenir ko gérer ko mais courant bi wàcc parce que ñun dañu soxla loolu. Mmh. parce que courant bi reflété wul son coût annuel. Mmh. ba noppi dañuy jël ay milliards suñu budget di ko di ko di ko di ko di ko di ko subventionné courant bi tamit. bi ci bi ci mujj. mais mais ma insister nag. ci concession yi Sénélec di def euh, Thioro. Mmh. parce que mënoo comprendre ay sénégalais dem dem Maroc. ubbi fa seen usine di jaay marocain yi courant. loolu moo am fii ay naar dañu ñëw fii produire fi seen électricité di ko jaay village ay tunisiens dañuy ñëw di def loolu te Sénélec moo leen di jox jox concession mhm. moo leen jox agrément mhm. loolu yëpp tamit ay xaalis la yoo xam ne mhm. euh, day am ñoom luñ ciy am parce que loolu du intérêt Sénégal population yi nekk ci àll bi nag xeex nañ ko ba sonn lamin Diop bu APR moom ex APR sax la ñuy wax Lamine Diop Dagana da waaw euh, Gandiol Gandiol Gandiol Gandiol moom mu ngi jooy loolu. moom ingénieur des pêches. waaw mm-hmm. ingénieur des pêches. Mm-hmm. ñoom problème boobu la ñu am seen dëkk dëkkaan moom mm-hmm. moom jooy na ko ba sonn xëy na euh, amul tellement d'écho mais je crois que jot na. Euh, loolu yëpp ñu réglé waale ko et toutes ces agence là yi nga xam ne dañuy def liggéeyu Sénélec. électrification rurale. Euh, énergie nouvelle. donc mix énergétique bi ñu ñu ngi ci politique boobu mais dañ koo moomul. parce que man dama foogoon ni 74 pour cent la Sénégal di jënd Aydara syndicaliste euh, SUTSAS euh, nee na 77 pour cent la Sénégal di jënd léegi. Oh. au lieu de 74 pour cent c' encore pire parce que 23 pour cent kese la ñuy produire. tendance boobu la ñu war a renverser. ba euh, tey ci côté bi ci mujj ci courant muy woyofal bi ñuy wax. xam nga woyofal mm-hmm. moom. yaakaar naa sénégal yi. Mm-hmm. ak woyof. liñ mm-hmm. ci